tant que Moustarchidaty yi euh, di xale toog ci naaj wi lan moo ko jaral. ah Serigne Moustapha jar na ko ki la ki la indi la ci lu mu rek da ngay def. jaral lu na ma lu ne ci àdduna bu tegoon fii sax incha allah su ma ko waaw yàlla fay siyaar. Euh, sanu yaay di mag tey jii nga ñëw fii di journée boo xam jigéen ñee ko moom. Euh, su ma doon laaj tey lan nga xam ci Serigne Moustapha lan ga may wax. li ma xam lépp parce que mën naa ko wax. non wax nga ñu li nga ñu rek laa xam. ak di ñaan yàlla mu yàgg. fi ci sunu kanam. ci barke maamam barke baay.